On a démarré depuis euh, le 7 juillet 2015 avec l'autorisation de notre doyen de la famille, Sounoubaï Abdou Abbas Ladjor On a démarré avec euh, l'appui du ministère de la Culture à l'époque, Mignekon Manik Ndiaye. Manik Ndiaye, pour euh, il nous a donné l'autorisation, nous rénover et on a démarré en 2015 avec mes frères, mes cousins. Et nous euh, avons on a amené de l'eau, 7 km de Kilmaha à Dekhle, euh, branchement d'eau, on a amené aussi, euh, on a fait aussi clôture avec l'appui du ministère de la Culture, avec le nommé Guissé, nous avons fait main à main pour aider le musée. Donc le musée est à moko initié mais sans mausolée bi mu egsi fii à ah, état kon du ñëw donc état mais amee ak Dexle 2018 ñoo liggéey lépp donc on a un projet bo xamni euh, un projet court terme la ak long terme et Ibrahima Masseck Diop bi xamni papa Abbas Abdou Abbas Diop dafa dafa xawa euh, febar mom moom la wax pour mu ñëw jàppale ñu on était ensemble on travaillait pendant presque trois ans ak ministère bi bi ñu egsee euh, ba des deux mois ci le bëgg a projet bi pour des fins politiques. alaikum wa rahmatullah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbooloo mi fi teew balaa ñuy tàmbali dañuy bëggoon ñu may nu tuuti astek benn saa nu fàttalikoo ko Idrissa jata adjudant Idrissa Diatta jata limu daj fii amul kenn ci ñun ku fi daj lu ko xanaa ñi doon daj li muy daj ci seen doole ba noppi di làmb seeni poos te Idrissa lu mu fi def nit ñi la ko dimbalee waaye wax dëgg mënoon naa toog fee ne bokkuma ci Lat Joor waaye nag un héros national ñëpp a ko bokk kon ñu may benn minute pour fàttaliku ko euh, noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lan moo nu fi dajale tey jii sunu maam Lat Joor Ngoone Latiir di sunu maam nun ñépp te jaboote ku ne jaboote lu ne daj lu ne itam ngir Sénégal bañ a dugg ci nooteel mba ngir Sénégal génn ci nooteel looloo ko tax a tëdd ci sunu ginnaaw bañ boobaak léegi nekk na téeméeraat yu topp bi ñëwee 1986 Abdou Diouf moo fi ñëwoon ñu ne dañuy màggal téeméeri at yi Lat Joor ci suuf Abdou Diouf ren jii nag noo fi nekk di fàttaliku sunu maam fexe itam. ba fii nga xam ne fi la sunu maam ji ku fi ñëwati xam ne ay sëtam fàttewuñu ko loolu nag benn waay ca ngaañaan di sëtub Lat Joor nekk nii ci sama càmmoo ñu naa ko Basiiru Jóob wax dëgg yàlla moo njëkk am xalaat bi ci noonu ñi fi nekk de moo ci njëkk am xalaat bi euh, mënut a ñàkk nag tuddees ko moom ndax lu ne fàng kenn du ko jeex lii fi ne moo ko njëkk a xalaat def ci alalam itam nag te ba mu noppee kat daa xam am na kilifa mu dem ca kilifaam ne ko mankat kat la ma doon def fee noppeegut waaye sori na tëj naa ko ba caabi yaa ngi nii am ñëpp mënuñu loolu te ba ko ne kaay nu def daa mel ni di dafa diit diital nan laa ko mën a tuddee teewul mu nekk ca la mu nekkoon ba lii taxaw fi tey ñu woote fii le premier le deux ak le trois novembre le premier ak le deux ñu nekk ca Cilmaxa wàcce fa ay kaamil ñaanal mboolem way dawlu yi le deux ñu woo mboolem ña fa nekkoon te feebar faj leen te laaj ñu leen dara aat ya fa nekkoon te ma tamit dugg néegum góor ñu dugal leen néegum góor te ñu dara ñoom ñi ñoo ko def la trois ñu ñëw fii ànd fi ak armée nationale ànd fi ak militaire yi ànd fi ak lenn ci responsable yi fi nekk ba ci procureur de la république ñu réceptionné liggéey bii ci njiitul kan ki jiite woon liggéey bi ñañ ci woon ñëpp ñu waroon koo jiite ñëpp dikkuñu donte la xaj na am na ñu dikk waaye dikkuñu loola it jaadu na kaay nu samp garab gi nga ne samp ma ñu samp garab ga di ko roose bu mag bu ñu ne kaay toog ci kër gi wax dëgg yàlla boo to fa toogee itam du neex lool ci yow loolu laa jàpp man ne moo tee ñëpp dikk waye ginnaw bi ah ñu dégg ne nyonya xam ne kat nangu woon a bok ci garab gën doon jëmbat mba ñuy suxat nee nañu leen nak gis kër gi ma fi def waye ngir yalla kay eh, eh, lo lo bañ bañ samba xam man na sami nak nag ñak li ki ko fi def ñepp xam nañ ko ndax defu ko woon bëccëg la ko doon def tey nawleem la àndaloon kon kon ku jóg ne maa ko fi def te doom moom wax nga loolu la soob teewul nag njaboot gi daa kilifa goo xam ne kenn werantewul ne kilifa la moo jiitu moo yore kàddu yoon wi kàddu kër gi kenn xëcc ko wut moom kàddu ga waaye nag boo amee njaboot gu la mën a féete fa nga war na féete itam da nga leen a war a gërëm gunge leen sant leen loolooy sama xalaat man waaye li ngay def duma caan ndax baaxut nga dem ba mu yàgg nga naan lii kat maa bëgg ko aakimoo ah, rafet lu wuma ko man nag xaj na Samba Sugum Gueye suy wax rek ndax ñi ma gën diggu ci Lat Joor a ngi fi waye dal amna ci tank de mhm. Cheikh Mbacke ñaan la tudd Adama cierno euh, ñaan mu jur Adama Diop Lat Joor ko jur amna ci tank bu ma sentul Jibril fi lañu daano wa lolé mo dama ko doon bayyi mu jall waye ña bok ak sama maam ndey dong ñoo and ak mom daan cendeel ak Wow, xawar mhm. lolé mo bo ci duma ca yegg. waaw dama ko xamoon bëgg koo denc kon kon li fi ne liggéey bii fii taxaw daal Basirou Diop mii de boppam Basirou deux mille déqali deux mille dix man ma ne ko deux mille toujours bu ko fi deful moom dong moo ko sabab te ku cay def da nga koy dimbali ndax moo ca jiitu man mii di wax nag sama ñaari salaamaaleykum demagu ci. sama ñaari salaamaaleykum demagu ci waaye nag. dara mënu fee xew te yëguma ko de luñ fi wootee su ma mënee dinaa dikk gis nga inauguration bii xam na yëg luñ ko kenn man yëgoon naa ko sama doom daa gaañu ca bis ba ca ca gaaw boobee sama doom da caa gaañu ma fii dem ba dem ñaan gii ma dëkk loolu moom ma tee teew ndax kon dinaa fi teew ku fi wax lu ma weddi ko ñu euh, boo génnee boo génnee Abbas Diop mii fi mag te fi ñu ak manam ma

day tàmbali kenn xamagul nag fu mu yem ku ñëw fekk ko ci ku dem ba ko ci